ci talaata ji ndakaaru géey lool tali yi ni yàmbalang yenn ci lekkool yi ñu tëj leen commerçant ya ñu dajal nag gisuñu benn client lépp ni tekk loolee lañu ñu nemmeeku ca cité kër góor gi jàpp école normale ba université ba te moonte yooyu le gox waxtu wi daan na gën a xumb lool ndax dem dikk bi bu ñu sukkandikoo ci waa ji projet tey bi moo waraloon lu ni mel. neexul bon neexul mais projet boo xam ne am na deux ans ah fenn. ah nit ñi di tardé ah soxlay doxatul dara doxatul ah fi ku ku bëgg a liggéey sax doo ñeme liggéey ndax ndax ndax ndax projet bii neexul ba neexul mais sénégalais kenn kontaanu ci. mu mel ni rek seetlu bi benn la saay su procès Ousmane Sonko amee waa ji moom di dëggal lu ni mel. parce que actuellement nit ñi dañoo tiit xamuñu maanaam fan la ñuy sutuyoo ndax procès saa yu amee booy xool kenn du nangu génn. kenn nangu dem doxi say activité yenn malade yu war a faju ji mënuñu ñëw hôpital faju xam nga c'est un peu c'est un peu désolant donc dañu war édifier nit ñi une bonne fois pour toutes. tali yi nag di yàmbalang étudiant bi gise it noonee dañoo ragal parce que à chaque fois xeex day am de gauche à droite non yoon bi moom kenn génnul il pare que Sonko moom bu ñu waxee waxu Sonko rek instant bi ñëppay toog seen kër ci procès bi ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr tey dëkk bi wet lool ñu nemmeeku fii ab tekk te kaaral waaye takk der yi fees fi dell taxaw fu nekk di saytu ak aar kaaraange askan wi ñenn ña ñu jot a dajal nag di xamal ni ñu bëree ngi toog seen kër ndax ragal procès tey bi jur ay jàmmaarloo